بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دي دلال يسوني نيار فكيلو دجي ci lii nga xam ne moom lañ tuddee keppaaru weeru koor ñu fiy daje bés bu nekk fanweeri minit di fàttalente benn bind ci weer wu màgg weer wu barkeel wi mbokk tey jii bu ñu waxee ñaar fukkeelu fan dañuy won ne mi ngi ñu dëngbal lu rëy lool lu rëy loolu mooy lan mooy fukki fan yu mujj ci weeru ko ci weeru koor fukki fan yooyu nga xam ni mën naa nekk juróom-ñeenti fan waaye du tee yàlla bind ko yoolub fukki fan loolu mbokk julit mbir la moo xam ni bu jara bàyyi xel la même bu doon dara xewu ca sax su dee ne weer yi dafa nekkoon ñetti pàcc ñu dema dem ba ñaari pàcc ya ñu won ko gannaaw desul lu dul benn benn boobu bu yemoon ak yi jiitu sax ñu war caa profité balaa koor gi di jeex waaye rawatina nag pàcc bu mujj boobee yemul ak yu jëkk yi bokk nañu xam ni weeru koor mi ngi nii di weeru yàlla màggal lool bokk na ci màggal gëm ko màggal ci la wàcce alquranul karim alquran jooju nekk njub guy leeral nit ñi fu ñu war a jaar ba texe àdduna texe allaaxira mu leen di teqaleel la nga xam ni mooy yu yoonu njub ak yoonu cànkute moom la borom bi di wax auzu billahi min alsheytan irrajim chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan mbokk weer waa ngi noonu li ci gën a màgg moo ñu taxawee woor ko loolu moom ponk la ci ponk diini képp ku ko sàggani loolu day yàq sa diini moom la borom bi ni fa man shahida minkum shahra fal yasum képp koo xam ne nii fekke ne weer wi am kattanu woor ko na ko woor mbokk gannaaw alquran jooju ci yàlla wàcce ci la yàlla it indi ay kawtéef yu rëy mooy njëlbeenu xeex bu lislaam xeex ak i noonam ma nga amoon ca badr ca la suñu borom yàlla xoole ñetti téeméer ci ay jaamam mu dimbali leen ci kaw junni nit yoo xam ne ñoo leen ëppoon ay arme foofu wàcce leen ay malaakaam malaaka yi ànd ak jullit ñi dàq noonu yàlla yi loolu ma nga amoon ca badr bañ ca tegee ay at yu néew suñ borom yàlla makka bi nga xam ne fa la yonent bi juddoo ak i sahabaam ñu génne leen fa dàq leen fa sampoon fa lu dul jeex ci ay xërëm ca la tànnoon muy wéeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak i sahabaam ñëw ubbi waa makka waa makk yépp torox ci kanamam suufe ci kanamam doonte ni sallallahu alayhi wa sallam di leen a jéggal waaye bisu keroog la teggi lépp lu fay xërëm ca kaaba ga ba sunu jamonoy tey jii loole mi ngi amoon mbokk ci li nga xame ñu ni moom mooy weeru koor waaye mbokk gannaaw yooyu nga xam ne nii xewoon na ca di mbir yu màgg yu kawe yooyee suñu boroom it mi ngi tànn benn guddi bu ñuy tuddee laylatul qadr wàcce ko ci li nga xam ne nii moom mooy weeru koor lool it doon loo xam ne dana ko may ngëneel lool su ko defee guddi googee suñu boroom yàlla ngiree bëgg jaam yi sàkku ngëneelu weeru koor yépp ca la ko nëbbee ci biir weer bi loolee ngir jullit bi première guddi baak fin ba yépp mu góor góorlu ca waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmaande bi yàlla defoon ci moom ak ni mu xamee càggante nit ñi loolu it moo tax mu noppal ñu ca ci ni mi ngi nekk ci fukki guddi yu mujj ci weeru koor loolu mbokk mooy la nga xamee ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégaloon xeet bi ba mu leen bégalee ci waxit noonu la ko mandargaale ci ay jëfam sallallahu alayhi wa sallam loolu it moo tax ba képp koo xamee ni nii yonent boobu mooy sorowekaay yaa ngi bëgg a topp ak njubam ëllëg nga bokk ci ñiy ànd ak moom mu romb leen ñu naan ci déegam ba ànd ak moom tabbi ca aljanna ya gàllawaay war nañoo bàyyi xel naka la doon jëfe ci weeru koor waaye naka la doon jëfe ci fukki fan yu mujj yi bu ñu delloo ci ki ko gën a xam muy soxnaam si aisha radiyallahu anha nee na kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yattahidu fi l ashri l awaaxir maa laa yattahidu fi gayrihi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nam daan defay effort ngir jege yàlla ci fukki fan yi mujj yi loolee daawu ko def ci yeneen fukki fan yi ci ci yeneen fan yi jiitu weeru koor yépp mbokk lu waral loolu mooy xam ngam xam sallallahu alayhi wa sallam différence bu nekk ci fukki fan yu mujj yooyee ak la nga xam ne moo ko jiitu donte ne moom yàlla garantir na ko àjjana yàlla baal na ko mboole mi bakkaaram sallallahu alayhi wa sallam waaye nañ déglu suñu yaay Aïcha muy wax ba tey mu ne كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئز شد مئزره ينتبه صلى الله عليه وسلم دي فكي قدي بنيون دي تك أبسرم أي سوري أبلال بمي جيجن جبوتم قدي يب متخوكو مبولة وأحيا ليلى دادي دندل قدي يب wa ayqaza ahla yee képp ku mën a taxaw naafila ànd ak moom ci guddi yooyee bokk julita la shakka ni a rasul salallahu alayhi wa sallam musul bàyyi qiyaamu leyli bal qiyaamu leyli farata la ci moom te lu bëri na borom xam-xam yi firi naafilatan lakk mooy loolu ak ndollanta la guñ la dolli mu nekk farata bu yàlla faratal ci yow donte ne sunna la ci mbooli mi julit waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan yi guddi yi ñëwee daawul nelaw guddi gi yépp sallallahu alayhi wa sallam guddi gi yépp da ko doon jagleel zikr jàng jàngal quran ak ñaan boroomam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nooñu da doon yee ak njabootam mbokk yee sa njaboot loolee da ngay gis ne ci li gën a am yaakaar ci lañu bokk ci lañu ci la bokk ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ni ida ayqaza arrajulu ahla min alleyli fa sallaya aw salla rakaatayni jamia kutiba min fi zakirina wazakirat ay fi zakirina allaha kasiran wazakirat a rasul sallallahu alayhi wa sallam daanu ñu wax ni ki yeewu guddi di naafila yee soxnaam ñoom ñaar ñépp ku ne julli ñaari rakka daañ leen boole ci ñi nga xam ni dañuy tudd yàlla lu bari ca góor ña ak di tudd yàlla lu bari ca la nga xam ne mooy jigéen ña loole mbokk suñu borom nee na aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima ñoom ñu yàlla ngi leen jagleel la nga xamee ne nii moom mooy njëggal ak pay yoo xamee ni nii pay yu màgg la ca borom bi subhanahu wa taala loolu it kon mbokk mu ñuy jàngal ngalawaay fukki fan yi bu ñëwee nañ fexe ba soxna yi doom yi képp koo xam ne jàpp nañ ne mën na taxaw naafila ñu def suñu kër yi kërug yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ca muy ñun ñépp ñu jóg jokkoog suñu borom jalla wa ala ci fan yu gàtt yi nga xam ne kat léegi mu jeex léegi mu jeex comme ni ñaar fukki fan yi jeexi fukki fan yi tamit insha allah léegi ñu woon ko gannaaw kon ñu war a góorgóorlu suñu kéemtaleel kattan profité ca ngir ngalla waay ñu dajeeg la nga xam ne moom mooy xéewalug laylatul qadr loolu it mbokk kon danañu yóbbu ngalawaay ki nga xam ne yàlla may na ko kàttan muy taxaw te yow ndawal julit bàyyil xel loolu mbokk sa maam yu bari mënatuñoo taxaw diir boo xam ne dana mat dix minutes kon jamono bii la yàlla maye kàttan ngalawaay boo mënul at bi yépp nga dékke ko di def qiyaamul layl waaye góorgóorlul waay ci weeru koor bi waaye rawatina ci li nga xamee ne nii nag moom mooy fukki fi guddi yu mujj yi taxawal di ci sa kanamu boroom di ñaan di toroxlu ci xam ne ci benn ñaan rek yàlla mën na ci defare sa avenir nga rawe ca kala rawoon fuuf ci alal raw la ci diplôme benn ñaan rek yàlla nangu ko nga raw ko àdduna bal raw ko sax àllaaxira ki nga xam ne nii mooy jaabir ibn abdullah daana wax ne sami'tu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna fi llayli la saa'a la yuwaafiquha rajulun muslim yas'alu allaha khayran min min amri dunya wal akhira illa a'taahu iyyahu wa zalika kulla layla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne amul benn guddi bi romb lu dul suñu boroom def na ci benn waxtu boo xam ne jullit du jóg mukk taxaw ci kanamam ñaan ko lu dul mu may ko lam ko ñaan loolu nag mbokk daa bokkul ak laylatul qadr laylatul qadr moom guddi gi yépp dafa nekk la nga xam ne nii mooy guddi nangu ñaan salaamun hiya xatta matla il fajr loolu kon mbokk heure boo xamee ne nii ñëw na ngalawaay naña gën a góorgóorluwaat profito ci njëlbeenu guddi ga waaye profito it ca jeexaayu guddi ga comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégale amul benn guddi bu ñuy dem ba mu des ceeru guddi ga lu dul suñu boroom jalla waala dana wàcc ci asamaanu benneel ca nam ko soobee lu méngoo ki melokaanam loo xam ne suñu xel mënu ko comprendre di wax jaam ñi moo ana ko may ñaan ma may ko ana koy xettali ko ma xettali ko ay kuy jéggalu ma jéggal ko ba baa fajar di jot mbokku laylatul qadr suñu borom yàlla màggal na ko lool jagleel ko aw saar woo xam ne moom dong mu lay waxe inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matla il fajr mi ngi noonu suñu borom mu ne ñoo wàcce alquran ci guddi dogal gi am ñu ko firi ci guddi gu am dayo gi ñu xadr mu ma lu lay xamal guddi googee nga xam ne moo am dayoo suñu borom di ca dogal lu ko neex borom bi nee na moo gën junni weer mi ngi noonu mooy trente mille guddi trente mille guddi yoo taxawoon di ko naafila ak zikr ak ñaan ca taxawoo lilatul qadr ki taxaw lilatul qadr benn guddi lam def moo ëpp daraja fuuf yow mi taxawoon trente mille guddi yoo xam ne dëppoo ak ay lilatul qadr lilatul qadr xayrun min alfi shahr suñu borom nee na malaaka yi daañu wàcc ànd ak jibril alayhi salaam mi nga xam ni mooy kilifa ak malaaka yi mboole seen moom la yàlla def muy seen njiit mutain samma amin jibril wàcc ci kaw suuf ànd ak malaaka yi fees dell ñu ànd ak jullit ñi ci jàkka yi ci kër yi di sabbal yàlla di bakk yàlla di màgg yàlla suñu boroom jox leen la ko soob ci liy war a xew ci at mi ñii ñoo war a dee ñii ñoo war a sëy ñii ñoo war a am wërsëg ñii ñoo war a tukki ñii ñoo war a nibisi ñii ñoo kaza kaza malaaka yi xam liste boobu nga xam ni seen boroom ma leen koy jox muy programme annuel bi am ci at bi ba baa déwéñati suñu borom mu ne ak mucc moo ca nekk ba ba fajar di jot te moo dina ne képp koo xam ne yaa ngi jublu ci yàlla su jublu boobee du neen yaa ngi jéggalu yàlla jéggalu ko du neen yaa ngi def lu baax def lu baax loolee du neen loolee lépp ba ba la nga xamee ne nii mooy fajar ga di jot mbokk loolu ba ba jëf yépp nekk jëf yu jeex su ko defee loolu lim lay jàngal mbokk laylatul qadr moo gën junni weer ay trente mille guddi day won kon ni la nga ca taxaw di naafila moo gën loolu moo gën trente mille guddi yu doon naafila zikri yi nga ca def noonu la demi sarax yi nga ca def noonu la demi loolu it di mbir boo xam ne ku ne war na ci bàyyi xel galawaay yow mi nga xam ni ñaar fukki fan yu mujj yi defar nga lu baax lool mu jëm ci fuqaraaw yi na am mën na am rogalaat ba yegg ca fukki guddi ya waaye it lépp loo xam ne mën nga ko caa yeesal jokkoo ak fuqaraaw yi ci guddi yu mujj yi xamal ni loolu day ci ngëneel yi gën a màgg la bokk bokk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaaba yi ñoo ko seedeel ne mooy ki gënoon a tabe ci li yàlla bind tabe googu nag daana gën a feeñ ci weeru koor heure bu jibril ñëwee ci moom te jibril da daan wàcc ci moom ci bépp guddi weeru koor ànd ak moom dina far alquran ñu ne su boobaa moom day mel ni rek ngelaw bu rijj ay lépp lum gis ne mën na koo joxe da koy jël joxe ko sallallahu alayhi wa sallam loolu it mbokk julit muy wane ne julit war naa fexe mboolem weeru koor mu nekk kuy jëriñ ña nga xam ne mooy jaami yàlla yi waaye nag rawatina ci fukki fan yi nga xam ni suñu borom da cay ful tuyaaba ya nga def mu gën a kawe la nga defoon ca la nga xamee ni ni moom mooy la ko jiitu mbokk fukki guddi yaa ngoog nga xam ne bu ñëwee daañ bokkoog suñu mbokki malaaka yi malaaka yi yërmaande malaaka yi barke yooyee nga xam ne nii ñoom ñooy wàcc ci jullit ñi nekk seeni xarit ànd ak ñoom te bu ëllëgee nga gis ne gis boo demee bay faatu daañ la feeñu boo génnee bàmmeel daañ la feeñu ne la ah ñun dey ñoo nekkoon seeni xarit ci àdduna ak ci àllaaxira mi ngi noonu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laaxira malaaka yaa ngoog mbokk jullit di ànd ak jullit ñi di leen xàmmee di leen yàkkamte dajeek ñoom yowmal qiyaama loolu nag mbokk dana gën a feeñ ci weeru koor waaye nag dana gën a gën a feeñati ca la nga xamee ne nii moom mooy laylatul qadr mbokk laylatul qadr suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam béggee leen na ci nee na man qaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi képp koo xamee ni nii laylatul qadr day dëppoo nga ak moom nga taxaw ca di naafila gëm la ca suñu borom yàlla dige yaakaar pay ca yàlla mboole mi bakkaar yi nga jiitaloon yépp suñu borom yàlla baalu na la ko ca loolu mbokk julita pour nga mën a comprendre rek bu ñëwoon tey sëñ caam kaay ba nga juddoo ba tey facture boo ma boo ma sa fay sones Senelec Sonatel kaay taxawal guddi gi naafila ko facture yooyu yépp ñu calculer ko la nga fayoon ñu delloo la ko boo ko jàpp naa suñ caam bu su bu bu rokkoo du siggi bu sujjóotee du siggi ngir yàkkam ci loolu mbokk nag loolu bakkaar yi nga jot a def ci sa sa sa dund ñu baal la ko wallahi moo ëpp valeur ëpp ngëneel ñu remboursé woon la cinquante millions yoo xam ne da nga koo jotoon a jot da nga koo jotoon a joxe ci ay facture loolee kon di mbir boo xam ne nii dañ cee war a bàyyi xel lool buñ la waxee fukki guddi yi mbokk xamal ni mi ngi commencé ci la nga xamee ne nii moom mooy bisu tey bii di ñaar fukkeelu fan ci weeru koor bu jant bi sowee rek fukki guddi yi commencé na mi ngi noonu suñu bisu tey àllarba bii di ñaar fukki fan ak di ñaar fukki fan ci weeru koor bu jant bi sowee rek fukki guddi yi commencé na loolu ñu war a góor góorlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax jéem leen koo gëstu jéem leen koo seet ay mënuñoo dogg ci ne ah guddik tey gi ñu jëm la wala ba ca topp ba ca topp waaye ku nekk di góor góorlu sa kemtalal kattan daana wax taxarru laylatul qadri fi l ashri l awaaxir min ramadan góor-góorlu leen ci seen kemtalal kattan laylatul qadr ngeen di ko seet ci la nga xamee ne mooy fukki gudd yi nga xam ne yoo mujj ca la nga xamee ne nii moom mooy weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne jox na ca ay saxaabaam lenn ci ay màndarga moo tax bu ñu delloo ca saxaaba ya daanaka ay wuute am na ca lañ ca wax kenn xamut nu mu toll ci ay wax donte na wax yooyu bokk na la ca gën a ëpp ay tegtal mooy guddig ñaar fukki fan ga ak juróom-ñaar waaye nag teewul da ngay gis lu bari ci ay saxaaba yoo xam ne nii ñoom dañoo indi yeneeni tegtal yoo xam ne ñii ne ñaar fukk ak benn bi la ñii ne ñaar fukk ba ak ñett la comme na ca dogoo Abdallah ibnu Onesin ñee wax leneen ñee wax leneen waaye daal xamal ne guddi yi ñu jëm tey te fukki guddi ya la góor góor lul sa kemta lal kàttan lépp loo man ci ay ñaan ak i ak i zikr ak i taxaw naafila ak ginne sarax nga la waay nga def ko mbokk la gën a am solo lañ cay def bokk na ca ñaan comme na ma la ko waxe sànq nit mën na laa raw ci jëf nga romb ko ci ay ñaan looloo tax yonent yi alayhimu salaam seen dund yépp moo doon jokkoog borom bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala loolu mbokk bu ñu xoolee dañuy gis ni suñu yaay Aïcha radiyallahu anha laaj na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi yàlla yónni yaa rasulallah araayta in waafaqtu laylat alqadr maa aduu qaala taquliin allahuma innaka afuwun tuhibbu alafwa faafu anni ayu mi yàlla yónni su doonte ne ne man damaa dëppoo guddi goo xam ne laylatul qadr la ay mooy guddi gu ma yaakaar ne tey mooy laylatul qadr waaw su boobaa lan nga ma sant ma ñaan mu ne ko Aïcha danga naan yàlla yow yaay jéggale te dangaa bëgg ak jéggal yàlla na nga ma jéggal mbokk yàlla rek kay jéggale bakkaar wa man yaxfiru zunuba illa allah sa bakkaar yi nga def yàlla rek moo la ko mën a jéggal moo la mën a jéggal faral la ya nga yañ la bindaloon moo la mën a jéggal ci ñu bañ laa bindal yi ngay def yàlla moom nag daa bëgg njéggal ca daa bëgg jaam bu ko jéggulu ba mu jéggal ko yàlla yàkkamti na lool ab jaamam def bakkaar jéggalu ko ba mu jéggal ko ndax ni mu bëgg jéggal ab jaamam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ca loo xamee ne nii chema munu koo gën a taaru nee na waa ji sank woon tegg yoonu yàlla bam yàgg mu daal di tuub dellu ci yàlla ni yàlla yi kontaane ci moom nee na moo raw ki yoroon benn giléemam di dox ci benn désert lekk ak naan ngaa yépp ci giléem ga ñuy dem ba mujj rek giléem ga rëcc ko mu dàq dàq gisatu ko mu doxa dox ba sonn gis benn keru garab mu ne comme damay dee rek naa tëdd dee fii benn yoon ndax mënul traverser désert bi sans lekk ak naan nee na nim ne gay yi nelaw rek ne xefeet fekk giléem gaa ngi ko tiim mu daal di jàpp ci buumu giléem bi kontaan ne ay yàlla yow yaay sama jaam may sa boroom kontaan na ba doon bëgg a wax ne yàlla nangu naa ne yaay sama boroom man sab jaam la mu juum nee na kontaante googu mu am ba juum suñu boroom yàlla it noonu lay kontaane ci jaam bi jàddoon yoonam xëy xëye tuub dellu si moom kon yuhibbul afwa mi ngi noonu daa bëgg di jéggale naka noonu it ni yàlla bëgg di jéggal ab jaam noonu la yàlla bëgg it jaam bay jéggale su ko defee nga la waay bu dee dañ laa tooñ tooñ googee nga mën koo fayu xamal ne ah yaa ngi ci bunt bu mag te muy jéggaleel ci yàlla tax loolu da lay jural yàlla bëgg la loolu da lay jural yàlla jéggal la yow tamit moo tax suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam abu bakar sadiq keroog bay suñu borom yàlla nattoo suñu ay Aïcha mu am benn jarbaatam boo xam ne moo ko yoraloon lépp mu bokk ca ña doon xas Aïcha mu ne bisimilaay jàmm kii bis ne ki tey dootu lekk sama dërëm sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ngalawaay bu mu waat borom ngëneel yi ci di defal njëkk ña nga xam ne dañ koo yeyoo fal yasfa fal yaxfiru fal yasfahu wal yaxfiru ala tuhibbuna an yaxfira allahu lakum ngalawaay ñooñu leen tooñoon jéllale leen seeni mbir jéggal leen xanaa bëgg leen yàlla jéggal leen abubakar ne ah kay yàlla man de bëgg naa ko ma jéggal lu ma ko doon defal benn léegi dubal laa koy defal radiyallahu anhu naka noonu itamit soo bëggee yàlla jéggal la bu la nit tooñee jéggal ko xamal ne bu la boo jéggalee rek yaa ngi am cafeelug yàlla kon mbokk ñaan gaangoo allahumma ay yàlla mi ñuy mi ñuy jaamu innaka afuwun yow yay yay kiy jéggale tuhibbul afwa dangaa bëgg ak jéggal faafu an nii yàlla nag ma jéggal loole ak lu ñu mën a ñaan ci fukki guddi yi bu ñu fàtte mukk guddi gu nekk loolee ñu ñaan ko guddi gu nekk loolee ñu ñaan ko ngir ñu dëppoo la nga xam ne mooy njéggalug yàlla mbokk dara du tëj bunti yërmande yàlla lu dul ay bakkaar dara doo xam ne du la yóbbu ci mbugal lu dul bakkaar soo amee chance nag yàlla jéggal la say bakkaar xamal ne texe nga bunti ngëneel ya tex ubbeeku na bunti yërmande ya ubbeeku na yal na yàlla jéggal ñu fi dunya wal axira su ko defee ngallaawaay mbokk julit nañu góor-góorlu jéem a sant suñu boroom sante ko nan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ba tànkam ya néwi ba tànkam ya di xar sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw yow mi yàlla yónni yàlla baal na la say bakkaar yi nga xam ne mas nga koo def ak bakkaar yi nga nar a def yépp mu tontu leen kaddu goo xam ne ku ne war na koo bàyyi xel afala akuna abdan shakura ay ndax duma doon jaam buy sant suma boroom jalla wa ala kon nga la waay xamal ne bokk na ci ni ñuy sante yàlla mooy nga sacrifier say nelaw sacrifier sa temps taxaw ci kanamu borom bi jalla wa ala jagleel ko ko di ko bakk di ko tagg di ko ñaan loolee ca cant yi gën a màgg ca la ñuy cante suñu borom ca la bokk doonte ni ne mbokk la nga xamee ni nii mooy la gën a màgg lu ëmb mboole mi jaami yàlla yi ca yonent bi alayhi salaam saxoo woon ko mooy li ñuy tudde itikaaf itikaaf mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fukki fan yi mujj yi daan dugg day daal di dem nag beru ca jàkka ji dootul dugg ci këram lu dul lu munta ñàkk ci faj aajoom waaye day beru ca jàkka ja commencé nag sallallahu alayhi wa sallam jokkoo ak boroomam jokkoo goo xam ne day dagg mbooli mi relation ak doomu aadama yi dem julli duggaat fam nekk julli duggaat fam nekk sallallahu alayhi wa sallam loolee ngiree muy tàmm jokkoo boroomam jokkoo boobu nga xam ne ku ne war na ko waajal ay yow mbokk julit que tu sois directeur président que tu sois lu mën a doon père de famille njaboot bi wër la xamal ni bis dana mës a ñëw ñu daal di lay rocci dem gas benn pax suul la fa nga wéet fa ak kan nga wéet fa ak sa boroom lu dul lu jóge ci yàlla du la fa fekk na doon loolu yërmaande la nga doon loolu mbugal la loolu nag moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan yi mujj ci weeru koor masaan jot mu daal di dagg activités yi nekkoon gannaaw jàkk ji yépp du armeel ya du lenn loo xam ne da koy defeti xanaa fii te jàkka ja guddeeg bëccëg di jokkoog boroomam subhanahu wa taala ca njàngu alxuraanam mu gudd ma ci zikram yu gudd ya ca ñaan yu gudd ya lii léppit ngiree daal di mën a doon koo xamee ni nii dana yeyoo ngërëmam suñu borom boobu nga xam ne boo doxee jëm ci moom mu waaxu jëm ci yow nga waaxu jëm ci moom mu daw jëm ci yow bëgg lool jaamam boo xamee ne ni da koy jege ca loolu itamit day tax ba ëllëg ki si biir nga bokk ñi koy gën a jege ci ajjana yu kawe ya lii mbokk da ngay gis ne bokk na la gënoon a am solo lu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan taxawee ci fukki guddi yu mujj yi mbokk kon bunti yow yaa ngi noonu suñu borom ne wasaari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lil muttaqin ay waay jullit ñi jëkkante leen jëm ci seen njëggulu boroom ak ajjana joo xam ne moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf yàlla waajal na ko ñeel ñi ragal yàlla yow mi mënoon a def fukki guddi yépp wéet ko ca jàkka ja ngal la way def ko bu dee yàlla man loo na la ci juróom-ñaar xayrun juróom baax na ñett baax na même bu doonte ne benn guddi kese kese ngay def vingt quatre heures nga def ko ci jàkka ja sax loolee ngalabay bu ko xeeb ca la nga xame ni nii moo lay jiitu ngiree nga mën caa am ngërëmal yàlla ngiree mu mën a diisal la nga xame ni nii moom mooy sa balaasu bis penc ngiree nga mën a yeyoo la nga xam ne mooy fadlullahi yutihi man yasha wallahu dul fadlul azim yàlla boroomi ngëneel yu màgg la dafa mel ni kon yéen waa keppaar gi yegsi nañ ci trente minutes yi nga xam ni moom lañ sasoon ngir daje fi di ñaan yàlla subhanahu wa taala la nga xam ne ni autorité yi diggéen nañ ko ca mooy daan ñu ubbil suñu jàkka yi ba baa ñu mën a jóge ci keppaar gi dem ca jàkka ya loole yàlla buñ ca teg ay galgal yoo xam ni dana tax ba daje ba jafe yàlla na ca ak yombal am ba jullit ñi di man di daje ci seen néegu boroom di fa jooxe nañ fa daan jooxe naka jëkk loole yàlla am na ci kattan yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko mbokk jullit kon mi ngi noonu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh